mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyuwaat ñëpp mboolem ñuy seetaan Sénégal Sénégal wala bokk si diaspora bi ñu ngi ci benn dëkk boo xamante ni fii ci Tëngéej la nekk ci autoroute à bi ñaar nekk fi ay kilifa dinañ ñëw ci taarixu dëkk bi ak dëkk bi nu mu tudd yooyu yëpp ak li nga xam ni moo waral coow bi nga xamante ni moo fi amoon moom maam Góor Jasaaka ak keneen koo xamante ni frère am la ñoo bokk ci dëkk bi waaye ñoom ñaar ñëpp dafa am benn euh, rôle bu ñuy joué fi nga xam ni moom mooy ci cité bi ñu nekk euh, fii ci autoroute à bi toujours juste rek ci Tëngéej euh, xanaa dama koy bàyyi maam Góor Diazaka kenn dootu ko présenté maam Góor Diazaka fu ñu koy présenté mooy ci diwaan gi ñu nekk ci dëkkuwaay bi ñu nekk ma bàyyi la nga nuyoo ak mbokk yi ñu seetaan ci Sénégal. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu képp koo xam ni euh, yaa ngi jàkkaarloog ñun di ñu seetaan. alors maam Góor waaw fii ñaari cité ñoo fi nekk dafa am euh, cité Almadina City ak Jazaka mooy fii ñu nekk nii. Euh, maam Góor loolu sax dootu ñu ko présenté bi mu ngi parce que bu ñu déggee euh, Rufisque rek Rufisque yaatu na mais foo ko ñu localiser ko ñu dégg fi benn coow boo xam ne am na fi coow bi sax tàmbali na woon ci fan ya ñu mujj defoon ngeen benn genre cité. loolu fësoon waaw coow li ko indi lu simple la euh, damay profité ci occasion bi di nuyu waa Sénégal yëpp encore une fois di di di di baalu ak ci ay images yoo xam ni dañ ko def ay recoupe dagg ko dugal ko ci presse bi wane ci maam góor muy wax ay wax yoo xam ni ni ku ko ku xamul nu mu demee da nga naan maam góor dafa disjoncté waaw wala yarawul day saaga wala yooyu demewul noonu ñun dañu dëkk fii ci Tëngéej sorti 10 ci autoroute à péage bi nga xam ne Tëngéej fii rek moo fi des ci espace ñun ñu ngi fi dëkk depuis 10 ans lañ fi am suñu ay kër nekk fi nag di liggéey di defar comprendre la ñu jekki-jekki mu am benn société bu ñëw installé wu fii benn société boo xam ni ñëpp xam nañ ko central à béton la ñuy def béton la ñuy liggéey fii nag ñun liñ doon kaas mooy dañ ni dëkk bu fu ay nit dëkk usine buy def pollution waru fa nekk. usine bi néew ma la à proximité la nekk mais dafa ñëw nekk dans la quartier te usine bi ñoom bi ñu commencé seen exploitation ak léegi ça presque boo xoolee sept mois wala huit mois ci lay toll ñu ñëw teg ay silo di def beton ciment suuf xam nga ak ak béton te loolu ku ko wax wax bu cher ñun ñu commencé gis ni ay nit ñu ngi am problème respira respiration am ay malade yu fi am ak yooyu ñu gis ni nit ñi air bi pollution bi baaxul ñun ñu dem ci voie pacifique dem nañ fa à maintes seeti leen waxtaan ak ñoom pour xool nan la ñu mën a waxtaanee ba trouver ay solution yoo xam ne ñoom dinañ mën seen administration nekk fi exploitation bi peut-être bu ñu dee xool ñu yóbbu ko feneen saa yu ñu fa demee waaw la ñuy wax nii wala genre yu noonu bu ñu génnee ñu nekk ci leneen bi ñu demee ba cité yi maar ci cité yi euh, coow yi commencé bari ñu def pétition def ay signature mooy borom kër gu nekk signé nii man maa signé pour ñu dem ci yoon pour lii nga xam ni day def pollution di rey nit ñi wala di feebar ni ñi mu jóge fi bi mu amee ñu def ko dem déposer ko ci yoon au niveau de la gendarmerie de l'environnement bi ñu ko defee tamit ñooñu dinañ ñëw saytu li nga xam ne ñun moom la ñuy wax dinañ jéem a laaj ay image wala xam nga ñun lu ñu am rek bu poussière jógee ñu capturer ko yónnee ko waa gendarmerie ñu gis ko pour wan leen nii leen tey jii benn dañu am pollution sonore mais dañ am bu écologique mu sonoon ñu lool ñu taalal nag suñu loxo ñi nga xam ne ñëpp dañuy yëngu ci wàllu écologie wala ñu yëngu ci wàllu environnement ñu jàppale ñu ñun xeexuñu xuloowuñu taaluñu pono saagantewuñu dóorantewuñu ñun mësuñoo sànni xeer fii mësuñu mësuñu leen a wax lenn lu déplacé ba semaine bële passé bi ñu demee ba xam ni dossier bi presque c'est clôturé xam naa peut-être lii xeeñ ci ñoom peut-être dafa neexul ñun ñu def suñu conférence de presse remercier tamit ñi nga xam ni yàgg nañ ci nekk gën a dénoncé waat affaire bi jeudi passé spontanément ñu xëy rek gis société bi nu mu demee fii ñëpp gis nañ yoon bi ni mu demee ñu ñëw ubbi zinc yi nekk à côté ñëw fii ci kanamu buntu kër gi côté bi ne ni dañuy def conférence de presse conférence de presse boo xam ni da nga ànd ak ay quinze personnes yoo xam ni ils sont xam nga ils sont armés jusqu'aux dents ba pare dem loué ay nit xam nga léegi bu njëkk ba ay siège ak ay bâche lañ daan loué mais léegi nit dañ koy loué ñu dem loué seeni nit indi leen suñu biir koñ pour ñooñu def conférence de presse pour wax ni combat bi du combat cité bi mais combat maam góor kese la. non non non cité ñi fi ñëwoon dañ leen ay nit lañ yoo xam ne feneen lañ leen jëlee dëkkuñu fi. dañu leen a woo may leen ceebak ak dëwlin may leen xaalis xam nga ñii ay pël Fuuta lañ man j'ai les image yoo xam ni am na ñoo xam ne dañ leen a wax kaa leen jël sarax sax lañ leen wax mi ni ñëw fii man am na boo paree en privé dinaa la wan image ay pël yoo xam ni dañ leen a laaj ñu ne ñoom dañ leen wax kaa leen jël sarax loolu pour am mbooloo pour toog ci mbooloo bi léegi ñun loolu bi mu amee tey mënoon na indi incident parce que ñun tey jii jeune koñ bi wala magu koñ bi bu ñu génnoon ñoom ñëpp ñëw taxaw xeex mën na fi am gaañante am mais comme man yàlla dafa dogal ni je suis un responsable moral dans le quartier ni ñi respecté na ma jox ma cër sama voisin bii nga xam ne mooy porte parole lu quartier bi moom moo ma woo ni ma gars yi kat ils sont armés te ñëw nañ fi indi fi ay nit bi ma génnee taxaw ñu nekk sama kanamu kër may may ma gis fa ay journalistes yoo xam ne am na ñu ma ci xàmmee ma bëgg leen wax ni leen ñii ngeen di filmer dëkkuñu fi te ñoom heure bi ñu ñëw dafa stratégique parce que ñu ngi ñëw jeudi à 9h du yi liggéey ñi si des ngi nelaw yeewooguñu comprendre la man bi ma génnee di dem benn booy bi presque daf ma daf ma bëmax presque daf ma plaqué ba ma daanu voilà daf ma bëmax ba ma tartari ba presque dama daanu bi ma kiwee mu continué waat topp ma di ma teg loxoom ma xam ni instant bi maa ngi courir le danger parce que man nañ 15 te ils sont armés il fale que ma napp leen ci ay wax si laa taxawee ni ko boo ma laalaate boo ma laalee naa la dóor bal bu ma laalee affaire yooyu quoi parce que tamit boobu sama gémmiñ rek laa am pour me défendre parce que su ma ko deful mën nañ ma tànc te man mag laa du ma xale comprendre la man si sama xel ma ni xaaral ñii man napp leen ci xel ma ne ko boo ma laalee ba laale dóor karab-karab te bi ma xoolee rek gis naa ni stratégie boobu jaal na parce que dissuadé naa leen comprendre la léegi ñu xëy le lendemain ma jekki-jekki ñu indil ma plante pour injure xaw ma lan ak diffamation xaw ma lan ak lan parce que waaw non ci ñoom la jógee usine bi la jógee parce que tey yow boo amee sa usine sa porte porte principale bi nekk fële nga am enceinte ci digg bi am ay bureau boo bëggee def conférence de de presse kay yaxaytu laay fii ni mu yaatoo mën nga ko defee ci biir wala nga def ko sa buntu usine mais boo ñëwee ci porte annexe bii ci ginnaaw nii ubbi zinc yi ñëw di ko defee fii ça veut dire que ni loolu c'est de la provocation est-ce que la gis wax bu dofee nopp yi koy dégg doful léegi nag ñun bi ma taxawee keroog di kaas dafa am ñoo xam ne seen téléphone lañ doon filmer parce que boo xoolee am na ay journalistes yoo xam ni gars yi leen di wane ci image yi c'est parce que dañ ma bëggoon disjoncteloo ma ma wax parce que maa ngi doon xuloo di di si saaga ak yooyu comprendre la léegi ñu jël affaire boobu bëgg ko exploiter pour bëgg a wane beneen image ci Mame Goor mais man stratégie la woon ci man tamit parce que je courais le danger wala mais xam nga nit historique bi la ñu xamul très bien nit ñi très bien léegi nag yow bala ngay jóge fii dinaa la paas ki nga xam ni moom dina wax ak yow nga xam ni moom mooy euh, porte parole koñ bi te yàlla dogal na bi mu fiy dëkk usine bi amu fi si dañu bëgg préciser Sénégalais yi nii quartier bi bi muy am usine bi amul dinañ la jox photo boo xam ni usine bi toolu mànga woon mais nag encore une fois dañuy ñaan l' du Sénégal di ko ñaan les autorités ñun jàmm la ñuy dox li ñu bëgg mooy ñu dimbali ñu ñun du ñu gis fenn fu ab sénégalais di liggéey ñuy ñaan yàlla mu tëj wala mu yàqu mais mën nañ fi bàyyi administration bi mais li jëm ci wàllu euh, euh, production bi nga xam ne moom mooy def pollution bi ñu jël ko yóbbu ko jam ñaajo soriwul foofu am na zone industrielle mais nag ñun loolu rek lañ bëgg xuloowuñu xeexuñu encore une fois xam xam nga dëkk boo fa nekkee ñu ne yow xaritu président la wala da nga jege état loo def rek dañ naan li mu jege état moo tax ñun bu ñuy def dara dañ koy jaarale ci yoon fi mu war a jaar dañuy dem porter plainte au niveau de la gendarmerie am na ministre ministère de l' environnement am na direction de l' environnement am na ay kuréel yoo xam ne ci environnement fi nga ñun dañ ko jaar benn par benn soo gisee gars yi mer nii affaire bi ñun dañ leen tànc de parce que mënatuñ jaar fenn parce que nit ñi xam nañ ni bu toll nii mënul nekk ci ab quartier léegi nag ñoom ñu ne xam naa ni comme affaire bi tànc nañ leen nañu jéem a attaqué leneen nañ jéem a créé beneen affaire def genre diversion wala jéem a xuuxal nit ñi créer leneen loo xam ni dañ naa man ku ma xam-xam ni je suis pas agressif te du ma saaga mais lii lu ñu créé la pour jéem a distraire nit ñi may profité nag ci occasion bi sénégalais yi nga xam ni peut-être sax saagay dégg nañ ko mu déranger leen ma leen di jégalu ñun du ñu duñu ñu noonu dañ lay jéem a pousser à la te ñun nekk ñu ci yooyu ñun suñu kudd jàmm la ràcc man toog naa ba tàyyi ay xale taxaw ni dañuy marche wala dañuy taal pono man maa leen di man maa leen di wax doo leen ko fi defee parce que réew mi jàmm lañ fi soxla encore une fois ñun du ñu bañ nit duñu ay raciste man mi je suis un artiste international di tukki di dem fu nekk mënu maa bañ ku jógee bitim réew ñëw di investir sama réew ndax am na sénégalais yu investir en France mais nag ñu teg ko dans les règles de l'art léegi nag dafa am benn affaire bu ma lay wax sama xarit bi di suma rak rak di suma voisin ñu dëkk dafa may wax ni ma bu njëkk ba xaj bu masaana dàq golo ba golo gi yéeg ci garab xaj bi day wañeeku dem xam ni pexe jeex na mais léegi xaj dafa dem wut ay xaritu golo fexe ba ñu doon ay gaayanam keus bu dàqee golo ba golo yéeg ci golo garab day taxaw ci suuf jël xaritu golo mi leen yéeg leen ngeen wàcceel ma golo gee nit ñi léegi dañuy ñëw di investir jël ay nit yoo xam ne ñoom ñoo waroon taxaw di défendre loo xam ni cause noble la parce que lii santé publique la man ma mère est décédée il y a vingt cinq jours te te fii la dëkkoon sama yaay daawul génn ci mbedd mi parce que dafa amoon problème mu respiration comprendre la tey ku bëgg a rey sa yaay da ngay bañ kii nii tey ji yaayam pneumonie la am te dinañ leen jox documents yi ngeen def ko ci euh, ci ci ci ci ci entretien bii ñuy def ngeen defaale ko ci nit ñi gis ko mais ah yow xam nga gan nga yow yaa fi dugal sa bopp yaa gis poussière bi nu mel yaa ma ko posé question bi parce que loo wax fii ku fi ñëw sunu armoire boo ci tegee sa loxo dafay mel ni ci saaku ciment nga ko génne waa léegi bu fekkee mur yu mel noonu sunu poumon yi nu mel léegi ñu ne kenn du ko wax ku ko wax ñu ñu jëm la euh, diaboliser ni waa ji dafa lii waa ji dafa lii ñun amuñu benn problème encore une fois nañ ñu dimbali jàppale ñu ci lii nga xam ni mu ngi ñuy lor ah doon loo xam ni baaxul ci askan bi voilà ma jox la porte parole bi. waaw euh, euh, kii mooy Mamadou Diagne. voilà salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen fay di nuyu waa Sénégal di nuyu dëkkandoo yi li ko dalee Almadina ba cité Diazaka ndax euh, taxawaay bi ñu taxaw maam tey taxawaay bu rafet la. donc may wax rek ni Sénégal aussi dafa metti ndax bu ñu demee ba population war di xeex ci place su mairie war di xeex ci place su direction de l'environnement. ndax lii installation euh, classée lañ ko tuddee mooy lépp loo xam ne installation la boo xam ne day mën a générer pollution sonor ci yenn extrémité on a des preuves tangibles yu leen koy wante te déjà sax mu ngi daw ci réseaux sociaux yi di daw un peu partout donc du loo xam ne lu ñuy naatable la. en mhm. mhm. fait transition entre euh, élection maire yi jàll mo am maire bu bees bu fi nekk mais honnêtement bi fi njëkk man constat laa mën a def moo tax ma demandé waa Bissa Béton ne leen ni euh, ana seen étude impact environnemental bi ngeen yor buy wone ni yéen amuleen benn loraange bu ngeen di teg ci population bi ndax loolu buñ ne amul ma indi samay dossier médicalu yaay pour wane ni lii nii am na ak yeneen yoo xam ne ñu ngi ci biir koñ bi donc beneen bi ci am aussi mooy emprise ak emplacement cadastral bu ngeen gisee lépp lu ñu naan installation classée dafa war a nekk minimum à 500 mètres fi ñi di dëkk te lii matul 50 sax mètres matul 30 sax mètres donc c'est regrettable dans un pays comme le Sénégal te fii dafa nekk point bu stratégique pour ñu dëkk Rufisque pour ñu xam lan mooy combat bi Sococim dafa nekkee ne di polluer di ñëw fii nekk bakken boo xam ne gis nga ngelaw yi ni muy ni muy dem di ñëw donc fii rek mooy bakkenu Tëngéej pour Tëngéej mën a am air pur mais bu fekkee tey mën nañ ko tuddee poumon vert Rufisque bu fekkee Sococim day euh, dugal pollution am moom mii muy dugal pollution am bu yàggee Tëngéej xanaa ñi fiy dëkk dañuy dee te nag maa ngi woo jeune Tëngéej parce que euh, du ñu woote nit ci ay violence mais suñuy droit nañuy fexe ba koy réclamer ndax pourquoi lii war fee mën a nekk te audience publique amul du benn dëkkandoo buy taxaw ne ñëw nañ sa kër pour wax la ne la impact bii la mën a am lii la ñuy apporter comme solution balaa arrêté ministériel di mën a am pour ñu mën def exploitation donc liñ demandé dafa claire bu ñu amee ñoom nee nañ ay papier lañ am yu leer papier yooyu nañ ko teg confrontation ñu wane ni lii kat yaa xay ci dëgg la nekk ndax lépp loo gis lu ne code de l'environnement da ko régi mooy yow nii lañ la classé population bi lii la lan yoon may ñu xool kan moo nekk ci dëgg kon encore une fois Mame Gor ne pas le débat jël nañ nag ay provocation yoo xam ni yooyu je pense que police ak maire yi ñoo ci waroon def enquête teg ci ay daan ci ñu ñu fi indi ñuy provoqué waa koñ bi ba pare tuddee seen bopp ne les cités jasaka Défane Bissa mën ngeen ko euh, xool ci net bi te loolu amul te seen seen de presse la la génnee ce qui veut dire que ni direction la boo xam ni euh, tracé la bu ñu teg pour en l'encontre de monsieur Mame Gor Diazaka beneen affaire bi may euh, ñëw rek di wax nuance dañ koy créer ci biir naan usine bi moo fi nekkoon moo fi jiitu dinaa leen jox image yi nga xam ne man ba may fondation suma kër fii toolu màngaloon mur beeg clôture beeg même mur bi ne sama ginnaaw ni n'existait même pas ci image yi li ma lay wax noonu ça date de 2016 te maa fi mujj ci biir image yi di nga gis kër maam góor ak drapeau bi ci kaw boobu R plus 1 la woon je pèse bien mes mots moo tax même suñu confrance de presse may wax ni képp ku soxla information ngeen di journaliste taxawaaye yéen ñi nga xam ne yéen a ëpp pouvoir ci dëkk bi jël si leen information yi jox ko seen askan lii mën a leer xeex bi ñuy xeex encore une fois direction de l'environnement ñoo waroon ñëw def inspection xool seen askan li ñuy dund ndax seen normal ndax nit di nga am ay papiers yu normal nekk ci distance bu normal ñu dem bu ñuy réviser waat pour xool ndax arrêté bi war nañ ko renouveler ou pas ñu ñëwaat ne la li taxoon ñu jox la woon ni na kon donc il va falloir que ñu xoolaat procédure yi ni ko moom waxee dem nañu waxtaan ak ñoom xool à l'amiable ne léegi est-ce que du ngeen xool seen système nu ngeen koy améliorer ba ñu mën a dëkkandoo dëkkandoog yéen donc ñu demee loolu ñoom ñu ne d'accord dañ fi def ay systèmes yu arrosé moom ngeen gis sax ñu commencé koo def pour ñun ñu mën a apprécier mais lañ la ñu def la ñuy arrosé mooy le te le stockage loolu rek du processus bi processus bi ñoom dañuy ñëw fii di remplir silos yi ak les camions banaan par air la ñuy solee échappé poussière bi ngeen di gis ci video yi nga xam ne wan naa leen ko ci silos yi lay jóge te ci échappé lay doon ndax seen filtre yi bu amee défaillance bu ndaw da koy waral donc risque risque d'exposition boobu moo tax ñoom seen nekkin fi mun ta nekk camion bu fiy gaare benn camion buy gaare poussière da koy yóbbu même yi nga xam ni muur nañ ko nii dinaa woon ay vidéo yoo xam ni mosuñ koo muur après coow lañ ko commencé muur te gestion des déchets boobu noonu dañ ko war a gérer te bu ngeen gisee ni fi déchet bi nekkee rek mooy que ni amaguñ solution nu ñuy géré déchets yooyu noonu donc li may wax encore une fois maam wax ko ma koy réitérer mosuñoo bi na fi jógee dañu xool li bon ci usine bi li nga xam ni mooy solution euh, pollution bi fi indi muy atelier bi nga xam ni mooy bâtiment bi nekk si ginnaaw muy joxe pollution sonore boo xam ni non ba bërki démboo njaay bañ koy def camion parce que li tax muy indi pollution sonore camions yi ñoom bu ñuy chargé bu fekkee ni am na ku def négligence ba bàyyi ciment mu wow ci biir ñoom ils son obligés ñu dindi ciment boobu ay marteau piqueur la ñuy jël di ko dóor ci weñ vous imaginez bañ koy def deux jours consécutifs ma woo euh, dénommé madame Dieye ne ko kat yéen li ngeen def te je vous prends en témoin sama whatsapp laa ko envoyé vidéo bi ne ko lii ndax yoon la vraiment di ko remercier ndax jéggalu na man ko jéggalu rek doyul def leen action ci la woowee monsieur Sall directeur technique ba muy wax ak booy naan leen ni sax loolu yëpp mun nañ am nañ ay firnde ñu déplacé camion bi bruit bi arrêté ñuy wax nag ni li ñu yàlla may yoon may ñu ko mooy que ni wax fañ mën a waxee jooy fañ mën a jooyee muy ci yoon informer aussi journalistes yi ndax bu amul woon yeneen conférence de presse kenn du xam li maam ngóor di kaas nii kon dafa baax fu ngeen nekkee ci benn combat ngeen dem ba ci biir woote ne kat fii lañ jóge fii lañ yegg kenn bañ ni yëguma woon looloo waraloon suñu conférence de presse. xam nga boo naan jàpp nañ ko ci pays buñ buñu ñu war a wax ni boroom dëkk bi ne pays bi pays de droit la waroo jàpp da nga war a am gëm-gëm ni pays de droit la. ndax bu loi demee ba ni kenn du def loi à sa place kon moom je pense que war na def loi am bu ñu ñëwee ba taxaw comme ni ma la ko ni ma la ko waxee kii installation classée la installation classée mënul nekk ci à moins de cinq cent mètres des habitations ñii ne ñii def environnement xam nañ ko bu ñu ñëwoon fii taxaw mais attends direction de l'environnement na ñëw taxaw fii def étude impact euh, génne ko xam nga lii du domaine boo xam ne ñun ñii fi toog nii war nañ ko sax di di ko discuter mais ñi nga xam ni ñoom la Macky Sall wóolu ba teg leen fi ñoom ñoo war a répondre ci ci question yooyu noonu ndax bisaa loo wax léegi xam na lu ñuy bàkkoo non dañoo am suñuy këyit dañu am suñuy këyit këyit nag buñ ko buñ demee ba naan dañu am suñuy këyit am na fu ñu sukkandiku ak fu ñu teg te ñoom ni ñu yaakaaree seen kayit yooyu ñun aussi noonu la ñu yaakaaree suñu loi dëkk te xam ni nit mën na fi nekk di fi buum di fi euh, dogal ba jóge fi keneen ki fi ñëw am obligation wu xool remettre en cause li fi tegoon comme quoi que nit mën na juum ci papier ñu jox la ko nga signé favorable juum ñu nangu ni dañoo juum yóbbuwuñ kenn ci yoon ba keroog mu koy jar xeexuñoo kenn ba keroog mu koy jar suñu loi dëkk lañu ñu wóolu gendarmerie de l'environnement def na liggéey bu mucc ayib mu ngi ci gouverneur ak ñi nga xam ne nii ñoom ñoo war a saytu dossier bi ñu ngi leen di ñaan encore une fois ñu def ci liggéey bi ni mu waree ak ni mu gën gaawee. waaw xam nga euh, ñun ay sénégalais lañ te dañu gëm suñu loi réew man dama gëm loi Sénégal tey jàpp naa ni gendarmerie liggéey na liggéey boo xam ne liggéey bu mucc ayib la yegg na ci gouverneur dem na ci ministère de l' environnement directeur de l' environnement ñëw na ba fii c'est un refus ñëw na ba fii peut-être jàpp naa ni gars yi li tax ñu excité peut-être gars yi dañ leen man xaw ma lu xew mais daal xam naa ni waaw beneen bi ci topp mooy man maam Goor je suis conseiller municipal à la ville de Rufisque su ma gisee loo xam ne doxul tëngëj war naa mun a porter combat boobu mu nekk combat boo xam ni kon combat pacifique lay nekk nekk lu positif lu baax pour la ville de Rufisque encore une fois man maam góor li ñuy xeex sante publique la parce que problème mu poumon dafa garaaw la plupart ku ko am faatu ngay def te nag ñun dañoo bëgg a dund loolu rek la xuloo wu ñu xeexuñu encore une fois bii moom dama bëgg ngeen tegal ma ko fii parce que bu ñu wanee la ñu bëgg a wane ni maam góor dafa saaga c'est parce que tey yegg naa foo xam ni il fallait loolu am léegi nag li xew mooy ñun xuloowuñu encore une fois xeexuñu lu ñu soxla mooy sunu dund gii ñu dund ko xañuñu benn sénégalais sa teraanga xañuñu kenn sa liggéey fe tey jii ñoom bu ñu fi mënee def usine chocolat wala usine meew wala usine euh, Euh, yooyu neex yooyu wala usine bon wala wala bonbon wala genre yu mel noonu waaw voilà voilà voilà yu mel noonu bu boobaa ñu dañuy kontaan mais boo ñëwee nag uufal ñu ciment di ñu ko di ñu ko di ñu ko di ñu ko kii noyuloo donc mais il faut ñu wax ko loolu rek la ah en tout cas man du ma tudd ay problème mu dëkk ak dëkk pour affaire u diplomatie mais li ma mën a wax mooy en tout cas ku ñëw xool lii di nga xam ne lii jaaduwul parce que li eh. eh, dama koy wax ah, di la remercier ci foofu nga teg euh, sa sa baaraam démb damay suivre euh, l'ancien ministre de l'environnement Thierno Lo voilà donc muy wax ni Sococim fekk na ko fi romb muy def pollution ndax seen filtre dafa yàqu woon mu taxaw dem ba ci directeur bi ne ko lii bu doon en France la amu leen fitu def ko du ngeen ko def fii jox leen sommation ne leen dans six mois bu ngeen ko defarul ma tëj ko kon donc ñooñu la ñuy xaar ci dëkk bi ñuy jël décision par rapport à ça ni ko na loo mën a taxawee publiquement wax ko ci télé bi nga xam ne mënu ma citer turam pour des raisons de publicité mais damay taxaw ma ni la tey jii may wax ak yow man maa ne turki yi seen dëkk sañoo ko fa def sañoo ko fa def te je pèse encore bien mes mots un étranger ne doit pas avoir plus de droit que nous en tant que sénégalais loolu moo doon suma kàddu gu mujj te di gërëm aussi internautes yi ndax gis naa ni par parloowuñu defuñu histoire de Macky Sall ak Sonko ak Mame xool nañ fi population bi li leen di gaañ ñu wax ko ndax histoire bi encore une fois du histoire politique du histoire bu maam góor maam góor cause bu noble lay défendre mënoon na toog def ni ko politiciens yi defee yabal ay booy xamb leen ne leen dem leen yàq ji après doxal médiation bi mais dafa ne luy yàq sama dëkk kenn du ma ci jiitu kon donc bu ñëpp doon def nii pour seen dëkk Sénégal jëm caw ci kaw ca kanam waaw maa ngi daal di leen remercier ci déplacement bi ngeen def ñëw fii parce que dafay baax euh, ngay leeral askan bi li xew parce que bu ñu gisee ay image rek te waxuñu image lan moo ko waral nit ñi dinañ gis encore une fois soo gisee ma koy def répétition la mais dama bëgg mu nekk loo xam ni waa Sénégal il faut ngeen dagg loolu pour nit ñi comprendre loolu ñuy wax maam góor dafa saaga lan moo ko indi man duma nit kuy saaga am naa fulla nag am naa fayda mun naa xuloo mën naa xeextu yooyu yëpp dëgg la mais man dañ ma yar yar bu baax lañ ma yar comprendre la mais am na foo xam ne nag boo fa yóbboo nit ki bëgg ko tuutal wala bëgg ko toroxal mu yëg boppam merci beaucoup